ay xaaj la seetal euh, Ihya Ulumuddin la réunification des sciences de la religion l'imam al Ghazali radiallahu taala anhu musique ay xeet la moom dafa xaajale <coughs> musique bi génne ci baat maanaam ci instrument bi génne ci baatu picc gémmiñu picc bi génne ci lamiñu nit baatu nit muy góor wala muy jigéen musique bi génne ci gémmiñu jigéen tere nañ ko musique bi nga xam ne day génne ci gémmiñu góor bu fekkee ne musique la boo xam ne day woote jëme ci sàngara wala mu woote jëmme ci dew wala fo wala muy yàgg-yàgg boo xam ne waxtu dana jot te nit ki xelam du ci dem tere nañ ko musique bi génne ci baatu euh, picc amoon na ay picc yoo xam ne dañ leen daan jënd prix cher di leen bu ci ay jardin ñu di fa jur ñuy déglu seen baat ci àndalib soxroor ila axirihi yu bari la picc yooyu lu génn ci seen gémmiñ araam musique lañ ko tuddee araamul musique boo xam ne nag góore koy musique maanaam mu ànd ak xasida dañu seet xasida gi lañ cay wax lan la bu fekkee ne xaside yi nga xam ne ki ko woy dafa woote jëme ci talab mooy fo ak mara nga xam ne day xëcc jëme ci naan wala po mu yàgg walla po kese tere nañ ko bu fekkente ne day xëcc jëme ci turu yàlla wala xasida yoo xam ne dañ ci tagg yonante bi sallallahu alayhi wasallam wala ñu di ci jàngale lislaam wala ñu di ci fàttali xew-xewu lislaam dafa am tuyaaba jaamu yàlla la gis ngeen euh, darwish yi maanaam yenn suuf yi nga xam dañuy def ay xalaqaat ay ay géew di sikkar walla ñuy way way yoo xam ne day xëcc seen xol jëmee ko ci bànneexu jaamu yàlla bànneexu xam yàlla bànneexu dellu ci yàlla wala kilifa diine bu fi nekkoon jóge fi ñuy way way yoo xam ne daf koy fàttali ñuy fàttaliku njàmbaar gi mu nekkee woon li gi mu daan xeetali nit ñi leeral gi mu daan leeral lëndami réer yi diine ji mu daan wane lu lu jëlal naa lu dagan la lu bari tuyaaba la rawati nag bu dee taggu yonent sallallahu alayhi wa sallam moom wala taggu kenn ci saxaaba yi wala ulama wala amiloona yi jaamu yàlla la musique bi araam daal mooy bi nga xam ne day xëcc nit ki jëmee ko ci bànneex koo xam ne bànneex bu profane la maanaam bànneexu àdduna rek la araam na ngir bu baree day indi day xëcc nit ki jëme ko ci àdduna fàttaloo ko àllaaxira fàttaloo ko dee fàttaloo ko yàlla bu yàggee bu fekkente ni itam yàggul waaye day xëcc bànneexu nit ki jëme ci po rek araam na tere nañ ko kon musique ci boppam kenn mënul ne araam ndax way dañ ko daanañ ko wax ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa am na baat yu mu daan sànni ci way daanam ne asdaqu kalimatin qaalaha shaairun kalimatu labid ala kulli cheyin ma allah baatilu baat bi gën a dëggu ci baat boo xam ne benn poète wax na ko mooy li wax ne lépp lu dul yàlla neen la ala kulli cheyin ma xala allah baatilu wa kullu naimin la mahalata zailu mu ni waykat yi Zuhayr ibnu Abi Sulma xam ne ci tàngu jaahiliya la woon maanaam euh, dat bi nga xam ne ante islam lu pré lu jiitu islam la xikam yi mu daan way yonent bi sallallahu alayhi wasallam rafetlu na ko entretien mu sheddat mi nga xam ne woyam yépp daf ci daan wax luy indi njàmbaar lu indi ngor luy wane ak jub nga xam ne day jàngal nit ki ngor njàmbaar jub am wëllëre am wëllëre ak baax way yooyu lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam rafetlu la kon buñ ne musique mu ngi mel ne wax dañuy tànn la ca rafet la ca ñaaw wala lu ci wuuteeg sharia nu sànni ko fële lu ci ànd ak sharia nag nu mën koo jëfandikoo kon musique loolu laa ciy wax yeneen laaj yi ci topp waaw musique musique nag musique yu bari parce que musique moom buñ ko waxee rek bari na ndax mën nañu xasaay bi mën na nekk musique donc boo ko dee woy waaw mën na la waaye mën nañu ko tuddi musique na ànd mën na ànd ak itam musique euh, dafa bari de li ma ci dafa bari bari bari bari bari bari bari ndax musique dañu nit ñi benn muy génne ci bant la weñ maanaam instrument wala muy génne ci baat bi muy génne ci baat benn baatu picc wala baatu nit bu mu génne ci baatu nit benn nit ki di góor wala muy jigéen buñ delloo ci instrument bi ulama wu yi ko tere dañu ne ndax day delloo ci xelu nit ki ci naan xam naa jamono yooyu dañ daan boole musique ak naan musique di naan xëy diggante boobu jege takkoo gi ñu takkoo mën na tax ñu tere musique woy moom lu dagan la waaye nag mu ngi mel ni wax rek wax ju wax ji nga xam ne dagan na wayam way ko wax ko ci way dagan na li nga xam ne wax nga ko ci sa amiñ ci wax ci wax nii rek araam na boo ko wayee araam na musique bi bu fekkente ne instrument boobu ñu wax la xam nga ne fo moom xaraam na fo ci boppam araamal nañ ko ndax bari téere bi ngeen di njëkk a jàng da ngeen ko ci gis ne fo lu araam la bu ngeen jàngee na fi sëñ bi da ko ci gis ne fo araam la dana am xaram maanaam dana am dugg dañu seet dugg bu fekkee ne fo dong la ak mu neex bu baree xaram na bu baree xaram na bu néewee am na musique bu ñu daganal bu ahlu tasawuf bi def nga xam dañ koy booleeg seen pecc moomu xam ne daf lay fàttali yàlla wala mu indi la raqaat moom musiqa da ko arab yi wax ulama yi wute nañ ci sama ku mel ne ibnu taymiya ak ibnul qayim def nañ ci tasdid bu metti ñoom ku mel ne limaamul xasaali def na ci tafsil moom waaye lu tasawuf fi ñoom bépp musique boo xam ne di fàttali nit ki yàlla wala muy nooyal xolam di ko jooyloo wala mu di ko kileel bu fekkente ne ki koy déglu yàlla la ci déglu dagan na kon musique araame mooy musique bi nga xam ne mukki day wax soo xam ne lii day xëcc xol nit ki jëme ko ci leneen moom ki koy dégg wala muy sànk jamonoom wala mu nekk baatil boo xam nga baatil la baatil boo xam ne da koy baril mu sànk sa jamono dox fàtte loola yàlla dox sa digganteeg moom noonu lañ ko araamale kon musique di ko déglu mën na yàq nit am nag musique bu baax musique bu baax nag ki koy def daf ko ciy jublu nga xam ne day ànd ak ay way mel na tey euh, wayu mukasim nga xam ne way taggee yonent bi rek mu des ndax baatu jigéen bi nga déglu ko foofu it ulama coow yu bari lañ ci am euh, am na ñoo xam ne nee ñu dagan na ñu jàpp seen illa ci bi sallallahu alayhi wa sallam jógee màkka di jëm madina ñu ko doon gàttangu jéeg ñooñu ko doon wax tala al badru alayna min saniyati lwadaa'i wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa'i ayuha al mabuusu fiina jita bil amri lmutaa'i ñooñu bu fekkee ne dañ ko boole woon ak moom dañ ko boole woon ak ay tabale di tëgg tabala ak musique benn la bu fekkonte ne itam dafa ànd ak musique waaye seet nañu li ñuy wax dañuy sant yàlla ci ñëw gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci ñoom teral gi leen teraanga gi leen ci yàlla jox ak xéewal gu mag googu loolu lu dagan la kon musique am na lu ci dagan am na lu ci xaraam li ci xaram daal mooy li nga xam ne toog kese la nga topp ko bu fàtte loola yàlla wowal sa xol yóbbu sa xol ci beneen état lu xaraam la topp an mu ne ak lan bànn musique ak